parce que tout simplement Sénégal dañ leen dañoo baaxoo bu ñu tolloo fii ñuy génn di saafonte ak di ci dox tànki jàmm tey mun nañ jàpp ne par bi mu demee ba tàng ba tàng sax la ñuy gis euh, keroog communiqué bi xalif général des Tidiane def muy euh, Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla na fi yàgg te gis nañ aussi l'autre jour bi ñu tëjee Walf Euh, xalifa bu ñaseen moom aussi def la même chose mais parfois ñu bëri dañuy wax ni lan moo tax ñuy yéex a génn di wax. foofu d'accord ma ci tellement dégg naa ñu koy wax sax bay gam-gam la sax église wax nañu eh, kilifa diine waxuñu. nangam aussi ñoom aussi gis nañu jàngu bi aussi yëkkati nag seen kàddu jëmale ko ci wàllu rapport. waaw mais yooyu yëpp dañ koy wax rek mais d'accord ci euh, am na am na bu yàggu rek laaj ma ma laaj nañ ma ko ma ne leen so c'est très dangereux. ci côté boobu ma njëkkee foofu pour régler loolu. Mhm. nga côté gam le kilifa diine l'islam ak église c'est très dangereux très très dangereux ñi koy def xamuñu lu mën a jur ci réew mi. parce que man mës naa cee clash benn intellectuel bu mag mais dama ko démontrer que ni euh, li nga def ni erreur la euh, parce que xam nga réew boo xam ni majorité bi ay jullit lañu fonk seen kilifa diine quel que soit nag coow yu am ak fitna yi mais biir église aussi day am ay wuute. mais dañ koy régler seen biir ci yar ak teggin ak fonk seeni kilifa am nuñ koy régler xëy na liberté boobu ñoom discipline boobu ñu am xëy na moom la julli di amul ci seen kilifa diine tey xale yi ni ñu sañee tey saaga imam ak seen kilifa diine la le chrétien ordinaire du ko du ko saaga prêtre am même bu d'accordul ak moom dana ko jox cër xëy na bind ko lettre wala dem ba ci bureau ne ko mon père je pense que nangam nangam. loolu tam xale yi duñ ko wax jeunes musulmans yi duñ ko wax côté bële rek la ñuy wax kon edu prêtre lu ñuy def yëpp tegu na ci yoon. ñaareel ba boo xoolee histoire politique bu Sénégal maa ngi koy tontu keroog benn benn waay bëri na lu fi xew ci ay njaaxum ak ay fitna église waxu ci parce que boobu temps c'était trop sensible may joxe rek exemple Senghor pour war ne danger bi am ci loolu danger wu église wax na jullit yi waxuñu. kon église mooy ñi baax mooy ñi bëgg askan bi jullit yi bëgguñu dara gëmuñu dara seen sëriñ yi dañ leen a ger église état da leen ni jox xaalis ci programme religieux bi lañ bokk seen cathédrale yi boobu mu jublu fii euh, bi nekk Mbour euh, Popenguine état bi ñaata milliards dafa def seen euh, chef d'église sortant bi fi mu dëkk fii Almadies ak këram yëpp noonu état bee ko jël en charge ak yeneen aide yu ñu leen di defal. loolu guerre lañ ko tuddee est que bu ñu joxee sëriñ si ñu ne dañ leen guerre beneen bi mooy que moo jëlee exemple Senghor loolu c'est important xale yi dégg ko soo gisee may def recul bi mooy li ma la wax ku la mag am lu mu la mën a dimbalee parce que recul historique bi wax naa ko sama page Facebook benn waaye xam nga lu ma wax balaa ñuy dee ngeen ñuy wax démb tey la ñu wax ma ne waaw démb ak am solo ku xamul démb da ngay juum tey xam nga benn xale woy église ñoom dañoo mës a taxaw ci buntu askan bi jàppale askan ma ne ko waaw da nga xamul moo tax Senghor tëj nga fi ay imam toroxal fi ay kilifa diine église waxul ndax li nekk chrétien Moustapha Lo bi Senghor fusillé fii en quinze jours fii ci corniche bi ñu bëri seen juddow leen mais Moustapha Lo reyul nit deful homicide dañu ne génn na lu mel ni fetal lu mel ni fetal lañ wax ñenn ñi ne fetal la mais bi mu tiiree tàkkul kon même bu ñu jëlee hypothèse wu dafa tiré mais bal tàkkul pourtant dañ ko jàppee comme homicide fusillé ko waa église waxuñu Senghor lu tax nga fusillé ko te église dañoo contre peine de mort euh, Mourchid euh, Cheikh Diallo damay fàtte tour complet bi ki gaañu bu yàggul te nekk fële. borom xam-xam bu mag érudit boobu nekk Kaolack bu yàggul la gaañu Muhiddin Muhiddin xaw ma lan jàllo ah, Samba. waaw xaadar yooyu sëriñu xaadar bu mag boobu nekk fële Kaolack mm-hmm. bu yàggul la gaañu c'était un grand érudit mu ne ma sengoo tëj ne ma ñetti yoon fii ci Kaolack parce que dama ne lu tax catholique yi di am Noël te jullit yi duñu am fête temps yooyu amaguñu fet mu tëj ma fii est-ce que église waxoon na Senghor du tax nga tëj imam bi te pourtant li mu demander sax c'est normal ñu nekk ci majorité musulmane chrétiens yi am Noël 15 jours ba pare ñun amuñu euh, suñu feet nangam nangam pour joxe juste quelques exemples kon bu ñu dugg trop ci yooyu parce que soo fi bëggee poser que ni woy église nangam ak nangam jullit nangam nangam beneen bi kilifa diine l'islam yi liñ fi taxawee ci réew mi ci ay wàllu jaay doole ba loolu wàññeeku fi wala euh, réew mi bañ a tàkk kenn xamul ñaata yoon lañ ko def. kenn xamul ñaata yoon lañ ko def loolu tamit soo xamul sa démb yaa ne na sëriñ yi sëriñ yi ban sëriñ ngay wax ak ban période ngay wax ak ci yan situation ngay wax kooku benn la beneen bi mooy que mais euh, église mën nañ apprécier benn situation génn def benn communication mais pourquoi sëriñ si war leen topp église yi li fu ñu suñu xalifi kon ils ont leur droit de communiquer sur ce qu'ils veulent quand ils veulent comme ils veulent pourquoi léegi ñoom suñu communiqué rek léegi suñu xalif tam nañ jéem communiqué nekk à leur remorque complexe boobu mooy lan suñu xalif dañuy xaar église xaaruñu église église dañuy xaar xalif yi kon nañ bàyyi ku nekk ak sa format ak ni ngay doxee mais xalif yi ils sont renseignés ci dëkk bi il font des arbitrages lu fi yëngatu yu xam nañ ko mais ñoom tamit ñooy seet ne est-ce que jot naa wax wala déet léegi nag pourquoi nga ne yow tant que waxaguñ rek dañ leen a ger moo tax kon loolu lenn la. beneen bi beneen bi euh, mooy que euh, sëriñ si seen rôle en tant que régulateur surtout su may wax xalifi laay gën a wax bu dul loolu bu dul loolu imaam yeeg oustaz ñoom yéen a ngi leen di dégg ku nekk ñii sax dañoo far carrément ñii ñu ngi ciy wax kon mënuñu wax ne kilifa diine xanaa xalifi lañ bëgg a wax mais bu dul loolu xalifi seen rôle ki war a àtte kooku da ngay teey settantal laaj ñi xam. ba pare doo weeje ak toroxal ñi nga war a atte ci penc mi parce que ñi nga xam ne da nga leen war a woo ñu ñëw nga jéem a seet nooy defee jàmm ci seen diggante boo wanee parti pris wala waxee noo xam ni wane na li kiy jox ko ak yelleefam kooku du la wóolu wala nga toroxal kenn kooku tamit du du boo ko woowee du ñëw kon xalif bi moom mënul lu xew rek mu def benn sorti ñaareel ba pratique politique mais ñi nekk ci terrain politique dañ leen war a bàyyi ñuy def lu ñuy def di def lu ñuy def mais ñoom chaque jour ñu def loo xam ne war nañ cee mën a wax seri yeeg imaam yi mais loolu bu ñu leen toppee nee naa benn imaam dootu fi am jot jiite jàkk wala nafar alquran wala jàngale. alors peut-être que ci période euh, manifestation yi peut-être moom moo tax ñuy wax waxu réaction parce que gis nañu ne euh, euh, semaine bi ñu génn am na ci deux à trois jours yoo xamante ni manifestation yu tàng am na fi ba ay nit ñàkk ci seen bakkan. xëy na peut-être boobu la ñu la ñu la ñu bëgg a waxee. waaw mais mais mais manifestation boobu est-ce que église dégg ngeen ko ci trois jours yooyu yëpp mu waxaat man benn yoon laa dégg église wax mooy ci report ba. Hmm. bi report bi amee ñu daal ne nañ woote jàmm régler lépp nii après ma dégg euh, évêque bi mu daal ne nañu éviter di contourner loi beeg yu mel noonu. Hmm. déggaatuma ko ci yeneen trois jours est-ce que chaque jour ci trois jours yooyu génn na ne manifestation nangam nangam kon nag ku nekk da ngay noppi di observer donc manifestation yooyu am. mais c'est pas obligatoire pour xalif fu manifestation amee rek ñu génn wax lu mu tàng-tàng ah, lu mu tàng-tàng parce que mais xalif yi la war a wax ci loolu quelque part mooy wax nañ ko mooy euh, ba yëf yi gënee tàng il en deux mille euh, euh, vingt et un trois mars trois mars xalif mhm. defuñ délégation ñëw toog acteur acteurs yëpp ne leen lépp lu ngeen di def ci wàllu nguur na ngeen ko def de façon pacifique def ko ci démocratie bu kenn foqati nguur bu ko kenn jëlee ci violence ngeen joxante wor ma te ngeen di waxtaan pour man ku la wax loolu wax na la lépp bu fekkee nag yow kooku daf la wax loolu ba pare bu demee rek nga manifester état bi dal sa ko ngeen xeex nga ne sëriñ bi lu tax waxaatul loolu mënul nekk kon sëriñ bi day mujj nekk benn foowukaay ni ma ko waxee sama page Facebook dan lay instrumentaliser piéger la si ko homme politique la wax waxal lii waxal lii waxal lii ngay wax da ngay mujj ñàkk fayda parce que ñoom seen bopp dañuy apprécier benn situation jubboowuñ ci sax tey opposition bi jubboowuñ ci am na ñu manifester am na ñu lu manifester bu ñu manifester ba pare tamit am keneen ku génn wax di sëriñ mënul topp loolu en au détail di ci di ci di ci positionné wu kon principe bi la sëriñ si mën a wax lépp na ngeen ko def ci jàmm ngeen def élection yi teg ko ci yoon mandute te ngeen moytu fitna ci réew mi maintenant boo bëggee def xalif bi nag léegi benn juriste bëgg conseil constitutionnel lu mu wax xalif bi répondre ci bëgg xale bu sànni xeer fee benn policier sëriñ bi ne ko bul ko sànni eh, mais loolu c'est pas possible c'est pas le rôle des chefs religieux homme politique nañu assumer wu ñoom tamit ak lu tax république am ay pouvoir yu bari ku nekk dafa war jël rôle am le marabout il est comme régulateur tout simplement et directeur de de conscience mais police dañ ko war a bàyyi mu def liggéeyam conseil constitutionnel def liggéeyam acteur politique def seen liggéey yéen ngeen def seen liggéey journalistes yi et cetera mais mun ngeen lu xew ni tey ji mun jàppee benn journal na sëriñ bi génn wax benn football benn nawetaan am am ko euh, d'accord ci bit bi génn pes arbitre bi mu am ñaari mor na sëriñ bi génn wax balaa dëkk bi di tàkk mais quand même soyons kon nag euh, mi ngi noonu nañ jox sëriñ yi seen cër mooy bàyyi leen ñu ngi suivre situation bi boo jëlee par exemple islam lu ñuy wax QDIS c'est le cadre islam euh, unitaire PUDIS mais c'est extrêmement important pourtant duñ leen jox tiir bi leen war a jox xam nga lu tax parce que QDIS pourtant QDIS xam nga lan moo fa nekk les comités scientifiques des confréries mooy comité scientifique maanaam ay intellectuels arabophones et francophones donc gis nga avantage bi ñu am ñu xam diine ba pare nekk ay francophones gars yi di politique lu ñu jàng ci tubaab jàng nañ ko ba pare plus ay arabophones côté islam ñoo fa nekk n seulement les confréries laay wax de. mais plus les associations islamiques ñuy wax léegi waa euh, ibaadu yeegi mel noonu ña nga fa yi ci gën a rëy ñooñu ñoom tamit dañuy génne ay communiqué di alerter société civile lañ bokk. Mm-hmm. kenn faalewu leen suñu waxee pourtant ñooñu dañoo yore kàddu sëriñ si de ci côté société civile mais non na xalif bi wax na kii wax donc euh, ñaareel ba damay gis ay ay sëriñ sax sëriñ su ndaw laa leen di tudde yuy génn waaw na xalif bi wax parce que fi réew mi toll nangam ak nangam yow nga ne xalif bi sa kilifa la loo koy jiitu ci wax. boo ko jiitoo wax mu génn wax li nga waxul nag yow kon jaxasoo boobu nañ ko bàyyi mais il est clair que xalif yi lu xew ñu ngi koy suivre mais nag ñoom tamit nañ leen bàyyee seen liberté ñoo xam nan la ñuy arbitrer ak man moment la ñuy euh, communiquer léegi admettons tey benn xalif bu génnoon daal ne euh, ñun daal li ñu gis mooy ne comme président Macky Sall euh, wax na ni reporté na élection yi léegi daal nañu nangu euh, mu jeex amatul dara lu ñu fi war a def nga wax lu mel noonu conseil constitutionnel génn daal ne dindi naa li Macky Sall décidé léegi wax boobu après foo koy ranger li ñu wax soit xalif bi dafa dafa faral Macky moo tax mu wax loolu soit bu xamoon loi warul jiitu conseil constitutionnel gis nga kon su nekk nii benn xalif warul woon jiitu conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel mi ngi étudier recours bi gis nga ruq-ruqaat yooyu ci wàllu droit. donc moo tax man bëgguma ñu ñàkkal fayda xalif yi et que en même temps aussi ñoom seen bopp tamit duñ ko nangu parce que am na ñu leen wër ci staff bi ñoo xam ni dañ naan leen ah sëñ bi defal bul gaaw wax de parce que fi nekk nii gars yi dañoo def recours sëñ bi naa ah bo lan mooy recours ñu ne ko noo conseil ko mu naa ah, kon nañ xaar ñooñu léegi nag benn xale boo xam ne xëy na yow da jàpp ne dañ laa jaay doole wala sa parti dañ koo njat et cetera yow doo doo mën a nangu